bon la 17 mu jot. waaw. et que comme li wax toujours rek merci merci euh, juste parce que voilà teaser bien, na wax Sénégal na lay wax. juste que le travail a été bien fait. parce que dama koy wax un artiste si tu es complet et que nga c'est parce que tu n'as pas travaillé. Mm-hmm. donc euh, j'ai l'habitude de le dire wax naa ko ci blaab tey wax ko les mm-hmm. Sénégalais à un moment donné ñu mënuñoo bëgg dara une chose et son contraire mm-hmm. ñooy toog ñu naan dañoo bëgg musique sénégalaise ni exporter ko vers l'extérieur dëgg la ñooy toog di kaas naan mbalax Sénégal la mais attends s'il y a une artiste comme Mia qui se bat qui fait tout pour exporter la musique sénégalaise avec la manière mais peut ko war soutenir donc tey ñu ñëw war évoluer tout, évoluer mentalité nous ñu bañ yem ci ancrage bi ñu il y a 1960 1950 1980. le mm-hmm. monde évolue musique bi dafay évoluer. Mm-hmm. et je le dis peut-être teel a wax di mais Mia waxu fi loo xamante ni lu doy waar mais waxu fi loo xam ne lu grave la luñ fi waxul. Mm-hmm. xëy à France français la làkk rek mais y ay musique <laughs> am na ay musique ay son yo xamante ni fii di mën nga xale bi léegi déglu. mais attends c'est muy ou quoi donc je dis Sénégal aussi c'est à eux de comprendre une chose wax naa ko partout Mia Guissé artiste en tant qu'artiste artiste tey jii nii je vois mal que Mia Guissé li mu sol ci clipam bi li mu sol ci son bi Mia war a génn dem benn kër xartan wala Mia war a dem benn xew benn mariage wala si benn am di jàmm Mia sol loolu wala def loolu noonu donc l'artiste. non Babacar yow xam nga c'est que c'est que yow xam nga ma en personne. Hmm. donc donc euh, tey tey euh, euh, tey mbubb bu ñuy sol mbubb liggéey la.

jure c'est une autre personne donc il faut que les gens les gens mën dissocient dissocier ñaari affaire yooyu noonu yëpp en fait. mais c'est ce que je dis c'est ce que je dis à un gars ben le gars boo xamante ni sama page fois ñëw mooy jour bi muy euh, jour jour jour bi ma posté vidéo oui mu ne non mais attends lan moi personnage ak artiste ma ne ko attends man je donne l'exemple de Ñanku ma ne ko Ñanku li muy sol di jouer théâtre est-ce que vous avez këram ak ñaari jigéen mu rafet est-ce que loolu lay sort exactement. Tane j'ai eu euh, la chance de le rencontrer ay il me dit man saane buy théâtre bi dajal et pourtant ci théâtre dafay comédie donc c'est pareil j'essaie de faire comprendre aux gens que la que j'ai connu. Mm. la Mia mais c'est diamétralement opposé à l'artiste tout à fait je le dis hein, peut-être que ne soo loolu ba Facebook texte rek ci bind na Sénégal dañoo war moytu affaire mm-hmm. nit ki xamoo ko fréquenté woo ko benn doomi aadama jóg fee wax rek nga jóg tërërër di wax ci doomi aadama bi mhm. il faut qu'on essaie d'abord de connaître la personne mhm. il faut qu'on essaie d'abord de connaître jaar-jaaru doomi aadama bi mhm. Mia Guissé est dans son coin tey hormis man hormis yow ñu gis Mia Guissé dem concert wala Mia Guissé génnee vidéo mais mënuñoo gis Mia Guissé feneen feneen mais c'est vrai je sors pas je vis pas mais c'est vrai déw ma fekk ci ji déw ma fenn yaa ngi yaa ngi sa kër bu amee conseil nga dem suivre ko amuloo conseil génne sa vidéo. yaa ngi gérer sa live correctement. moom que ne na yi di bàyyi préjugé yi ñuy jugé performance musicale sa métier musique la yaa ngi performer ci musique bi yaa ngi teg loo xamante ne ba jusqu'à par man li ma lay wax toujours rek liggéey lu bëri wax tuuti yaa ngi koy teg ci yoon continuer nga teg ko ci axe donc je vais pas trop trop trop tenir uh-huh. xëy na aussi tamit y a des gens yoo xamante ni incha allah rabi dañoo dañoo war a dugg sa live bi. et eh, que voilà di la wax ne daal ngoon nan lan nga nan ngoon quoi parce que li jot a génn ah Babacar Babacar coow yi bëri na waay sept heures daal laa leen jox rendez-vous nga yëgal aduna bi encore waaw ala waxa yi moom xam naa dañu mujj noppi rek benn yoon ah mais xam nga xam nga xam nga xam nga dama may wax tu sais tu sais une chose Mia tu sais une chose ouais nga dans la vie surtout si tu es homme je parlais de moi par exemple Babacar ma nekk ak sama soxna par exemple. Uh-huh. yàlla def ñu war a tàggoo ñuy tàggoo mooy taxaw di ko tëkku. dëgg la ndeysaan. taxaw di ko woon ne saa man sa life dara sa àdduna du dara saa man doo tekki doo tuus. Uh-huh. yàlla def tey soxna soosu noonu génn samay loxo dem di performer dem di avancer. sama xol mënul neex parce que dama tëkkoon li ma bëggoon mooy mu génn échoué mu génn torox ba ñëpp naan la jëkkër moo taxoon toroxoo woon. mais alors si tu es une brave dame comme Miyagisi nga génn takk sa ndig nga tuutoo ba tu continues de performer dana créer ay jaloux mais loolu comme le gars yi di wax rek Wally Seck li muy wax laisse les parler kii du ma la parler.